أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk jullit yi ginnaaw bu ñu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ginnaaw loolu ñu ngi ci histoire Muusa ba tey tey ñoo ngi ci Muusa alayhi salaam yatarabba fi qasri firawn Muusa moomu ngeen doon dégg ginnaaw ba sunu boroom subhanahu wa taala jàllale ko ci natt yu rëy yooyu mooy rey yi firawna daan rey nit ñi wa baadama atammat ummu muusa ridaatuhu ginnaaw ba yaay ji ñëwee nàmpal ko ba matal lam ko doon nàmpal zahabat bihi ila zawjati firawna moom yaayam ci boppam mi ko jur xam ngeen ne sunu boroom subhanahu wa taala ay mbiram foo ko natt wees na ko yàlla waxoon na yaayu Muusa dinaa la ko delloo delloo na ko yaay ji nàmpal ko ba xelu xale bi dal léegi yaayu firawna yaayu Muusa jël na xale bi delloo ko soxna firawna fa kaana min ahabi nnaasi ila qalbi zawjati firawn xale bi mujj nekk ci xolu soxna firawna lu mu gën a bëgg ci àdduna xale bi la pale bi li muy rafet-rafet yére yeeg takkaay yi château bi dex yi ciy daw ak garde yi lekk yi ndaw si gisatul loolu xale bi rek la gis loolu nag li ko waral mooy fa laysa haza fa xasab bal kaana kullu man yaraahu la budda an yuhibbahu li anna allaha azza wa jal qaal wa alqaytu alayka mahabbatan minni walitusna ala ayni ala ayni suratu taha aya 39 sunu borom subhanahu wa taala moo dogal képp ci château bi ku teg Moussa bët rek bëgg ko château bi lu muy toll toll toll tey kiñ fi gën a bëgg mooy Moussa alayhi salaam li mooy liir bi li ko waral mooy yàlla moo wax ci quraanam man yàlla maa jël sama cofeel sànni ko ci xale bi ku ko sëy bët ne jàkk bëgg ko ñaareel bi yàlla nee na man maa def loolu ngir ñu mën ñu mën koo sàmm ci sama sécurité man yàlla ngir xale bi mën a sàmm ci sécurité yàlla aaya bi moom la lenn ci ay njabarkat di jël boole kook yeneen ak ay caaxaan ak ak ak ak ak ak di ko njabari jigéen ñi fa alqaytu alayka mahabbatan minni njabarkat boo gis muy liggéey jigéen pour jigéen jooju topp góor bëri na ci ñoom ñuy utiliser aaya bi ndax rek li ci yàlla wax ñu jàpp ne buñ ci xërëmee nit loolu dafay war di ànd asa Moussa alayhi salaam fi qasri firawn Moussa dund na ci château firawna xatta kabira ba mu màgg ci château bi la dund demul fenn ci keppaaru firawna ak soxnaam foofu la Moussa màggee wa kaana baytu firawna yadummu azamu xubara fi tarbiya wa tadris waaye xam ngeen ne pale firawna ci jamono yooyu ëmboon na boroom xam-xam yi ëpp ci àdduna ci wàllu guerre ci wàllu bay ci wàllu éducation loo xalaat rekk ci jamono yooyu loolu ca pale firawna la ëppoon lu waral loolu mooy jamono yooyu Égypte mooy dëkk bi gën a mag ci àddina bi xam ngeen loolu yàlla defal na leen ko égyptiens yi seen dëkk gën a màgg ci dëkk yi loolu ba tey da nga ko fay fekk da ngay gis tey dëkk yi gën a peuplé ci monde bi Égypte ci la bokk mu ne ci jàng ak yar ndax misra ca jamono yooyu kaana akbaru dawla fil ard wa kaana firawna aqwa malik fil ard jamono yooyu Égypte mooy dëkk bi gën a rëy ci àddina bi waaye firawna mooy buur bi nit ñi gën a ragal ci àddina bi comme tey nit ñu ragalee États-Unis d'Amérique ak seen président loolu yàlla subhaanahu wa taala moom moo ko defaloon égyptiens yi léegi nag Moussa yaru ci biir palais boobu nga xam ne moo gën a màgg ci palais àdduna bi ci keppaaru buur bi nga xam ne moo gën a rëy ci àdduna jànge ci ñi nga xam ne ñoo raw ci àdduna bi mbirum àdduna fasha allah an yatalaqa musa alayhim afdala anwaau tadrib tadrib aw tadris wa tarbiya mu ne mu neex yàlla musa ci ñooñu noonu la jàngee façon mbooleem tàggatu ak yar pour allahu subhanahu wa taala mission bi mu ko fas yéene yabal pour mission bi war a sotti wa an yatimma zalika kulluhu fi bayti aduwillahi firaun waaye xool leen yàlla lim def mooy firawna mooy noonu yàlla bi gën a mag ci àdduna waaye yàlla jël ab yonentam dénk ko firawna firawna sàmm ko jox ko mu lekk jox ko mu naan entraîné ko ba pare xale bi daal di màgg daal di daaneel nguuru firawna firawna la mu doon ragal géntu ko ne am na ku nar a daaneel nguuram ndeke moom mooy yar kooku ndeke kooku ci keppaaram la nar a màggee ndeke kooku moom moo koy jox mu lekk moo koy jox mu naan moo koy jàngal moo koy yar moo koy tàggat ba waxtu wi jot kooku jële ko fi te bu leen fàtte ne kat firawna moo ne woon ku judd nekk góor rey leen mu rey ba sonn ca jamono ji muy rey ca la yàlla dogal ne ca la xale bi war a judd xale bi judd fekkewul yàlla dénk ko ko waaye mu màggee encore ci keppaaram foofu lan lañ fay déggee dëgg dëgg dëgg bu ñu amee xel mooy li yàlla bëgg kenn mënu koo téye kenn mënu ci dërëm li yàlla bëgg loolu rek mooy am da ngay sonn rek mais li yàlla bëgg mooy am mbokk jullit yi dars bi ñu jàng diggante firawna ak Moussa fi ko yaayam ëmbee ba mu judd ñu jaarale ko ci dex gi ba Firawna jël ko tey di ko yar ci këram suñ doon tàgg suñ doon wax dars yi nu paase liñ ci jële ci ay njàngit ci ay duruus al mustafaada danañ gis juróom benn juróom lay nekk bu njëkk anna li kulli bidaaya nihaaya wa li kulli nihaaya zulmu daaim تكون وخيما فها هو فرعون الذي علا في الأرض وطغى حتى قال أنا ربكم الأعلى سنرى كيف كان نهايته بقي tomb bu njëkk bu ñu war a jàng bu ñu war a teewlu bàyyi ci sunu xel mooy njëlbeen boo gis am na fu muy jeexee lu tàmbali rek àddina jeex bés a ngi ñëw mu jeex waaw lu tàmbali rek bisa ngi ñëw mu jeex loo gis ci àdduna ak lu mu mën a doon bisa ngi ñëw loolu day jeex waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh wa li kulli nihayatu zulmi daiman takunu waxiima tooñkat ku ngem bu nekk ci suufu yàlla si di tooñ yàgg yàgg yàgg yàgg sa mujj fu bon lay nekk loolu ñoom dañ koo jàng li borom xam-xam bi naan az-zulmu laa yaduumu isa daama damar tooñ du sax de bu saxee rek alak yàq tooñkat dëkk ci tooñ sax ci dund ko yàgg-yàgg rek da nga yàlla ko moo tax jullit war a moytandiku tooñ firawna ngi nii nga xam ne def na lu ne ci kaw suuf dem ba ne mooy yàlla ji gën a kawe danañ jàng insha allah ci ay fan yu néew yu ñëw fu mu mujje moom firawna loolu dañ koy jàng ci dars yii nekk sunu kanam ñaareel annahu la yahdu shay'un fi hada alkawn illa bi mashiati llah azza wa jalla ayyuha al ahbab ñun ñëpp li ñu war a xam mooy àddina bi lépp lu fi xew wala lu fi am ci neex ci li neex yàlla dong lay amee wallahi lu ngeen fi gis rek dafa neex yàlla ak lu mu mën doon nag su neexul yàlla du am ak lu ngeen gis lu mu mën a doon la yahdus fi hada alkawn shay illa bi mashiatillahi jalla wa ala lu mu mën a doon dafa neex yàlla mu am bu ko neexul du am fa haa huwa musa alayhi salaam yuladu fi laam allazi yuqtalu fihi firaun kullu mawlud zakar min bani israil walakin allaha najjahu wa jaala taabutu yasilu ila alqasr firauna wa alqa mahabatuhu fi qalbi imraa firauna liyatarabba musa fi qasr firaun mbokk yi Moussa ngi nii alayhi salaam mi ngi juddu ci at mi nga xam ne Firawna mu ngi fay mi ngi rey xale yi kañ la Moussa juddu ci at mi nga xam ne Firawna mi ngi rey képp ku juddu ci waa banu Israil mu rey la waaye ci loolu yëpp situation bi li muy ñàng ñàng ñàng firaaw naa ngi rey liir bu juddu yàlla bàyyi Moussa mu judd su doon yàlla nit la wala yow boo doon yàlla wala man bu ma doon yàlla lan la ñuy programme comme ku juddu firaaw na rey lu ñuy programme dañ koy programme waa yeneen wala ñu ñu arrêté wala ñu taajil ko ñu reporté ko ñu ne dootul am dañ xaar ba waa ji fàtte waaye xoolal yàlla qadarullah yàlla bàyyi Moussa juddu ci jamono ji ñuy rey garde yi di garde mu juddu encore Firawna yëgu ko ah lan moo waroon di ñu nëbbu ko ci àll bi loolu ko ci ay xur yàlla ne nañ ko teg ci géej ci dex encore xoolal lool rek dañ ko rek ci kees teg ko ci dex est-ce que loolu xel nangu na ko liir bu juddu tey ñu ne nañ ko teg ci kees teg ko ci dex kan ma koy def fi doomam ci ñun loolu boo ko defee ñëw bu la dig parce que yow nañ yow kii wérul kii kii ba kii balaa ñu koy tëji sax duñ ko yóbbu ñu faj ko ba pare parce que kii normal loolu la ñuy wax boo jëloon sa doom nga teg ko ci paan teg ko ci géej gi ci ndox mi luñ lay wax yow wéru xoolal yàlla bi mu santee loolu yaay Moussa mu def ko ba pare dëgg dëgg xanaa sax yàlla bokk dafa waroon puus xale bi yóbbu ko beneen dëkk mu jéggi wala mu ne ko yóbbul ma ko ci firawna mii rayaate allahu akbar laa yàlla mooy yàlla ñu yóbbu ko ci firawna mu yaru fa ba màgg te moom la doon wër bu kooree tey moo ngi nii di ko yar moo ngi nii di ko jàngal kon lii def ñu war a jàngal li yàlla bëgg loolu rek mooy am keneen lu mu bëgg doom yàlla rek li mu bëgg mooy am suñ xamee loolu rek nag dañuy ci jëlee am pas-pas ñu noppalu dootuñu sonn ndax li yàlla bëgg ci ñun dong mooy am mbokk yi ñetteel laqad warada zikru ummu musa wa uxta wa lam yazkur abihi li anna durus alkabir qaamat bihi ummu almubarak danañ jàng ci histoire musa ci dars yi ñu passé mbokk yi papaay musa nu mu tudd papaay Moussa ah Imran la tudd ok kan moo leen wax imran la tudd papaay Moussa yàlla tudd ko fi ci histoire juddu Moussa ba Moussa di dem pale kër Firawna ba Moussa di am mission yàlla tuddul papaay Firawna papaay Moussa xam ngeen kan la yàlla wax yaay Moussa ak sëram juddu Moussa yëpp yàlla tuddul papaam ndaw si rek la yàlla wax muy yaay ji ak sëram ñoom ñaar la yàlla tudd ci Qur'an loolu lu ñu ci war a jànge mooy yaay dafa am rôle bu rëy bu mu war a def ci doom bëri na fi góor gu sa kër échec sa jabar moo jàppul ci sa liggéey kër bëri na fi kër goo xam ne doom yi réussir nañ yaay ji la bu leen kenn nax kër jigéen la gaa yi yéen bu ngeen di tëdd bu fekkee da ngeen di tëdd da ngeen nelaw bu leen xatal fi gaa yi dañuy déglu das yéen déglu leen kay da ngeen di nelaw dem leen fële ci ginnaaw yeel ñooñu waaw xoolal kii moom ah kon ñu gis ne sunu borom subhanahu wa taala ki mu tudd fii tey mooy yaayu Moussa ak rak magam bu jigéen yàlla tuddul baay ji ndax rôle bu rëy bi yàlla bi yaay ji def liggéey ci Moussa alayhi salaam fa haza yuwaddihu manzilatu l umm wa dawruha al azim fi tarbiyati awlaadiha loolu day wone rôle bi yaay war a jouer rôle bu rëy bu màgg ci yar ay doomam jigéen soo ko bàyyee ci sa cummikaay rek réussir jigéen ju baax nag soo ko bàyyee sa ginnaaw rek rëcc soo bàyyee jigéen ju baax sa alal mu mucc soo bàyyee jigéen ju baax sa kër kër ga mucc soo bàyyee jigéen ju baax say doom say doom yaru la moo tax histoire mag ñi ngeen di gis ñépp ñu liggéeyal yàlla da ngay fekk seen yaay am na lum ci def ñoom ñëpp nag moo tax ñu ne waraa kullu azim imraa ponkal moo gis cummikaayam jigéen moo fa nekk kon loolu dafa leen di jàngal ne nit balaa muy dugg ci néegu sëy mu tànn soxna critères yi yonent bi di diine di tànnloo critères yi yi yi diine di wax pour ñu tànn ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal nañu ko pour nit mën a am soxna su baax su nekk ci wetam benn boroom xam-xam dafay wax mu ne xadiis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ne ne jigéen bi ko yàlla di bind fan la ko bindee ci fan ci ay faar ci faaru ndeyjoor càm càmmoñ a càmmoñ faaru càmmoñ gauche ci faar yi mu ne la moo tax jigéen kenn bindu ko ci bopp kenn ubbiwul bopp génne fi jigéen lu tax kenn demul ba ci tànk ñu xotti ko ci suuf génne fi jigéen lu tax bu ñu ko defee ci bopp fekkoon na yàlla ci bopp la génne jigéen kon jigéen day nekk supérieur góor day toog ci bopp góor di dogal di def lu ko neex kon góor du mën a nekk kilifaam bu fekkoon ne ci tànk yi la day nekk jaamu góor kon góor du nekk du ko def jigéen nawle ñu ne lan moo tax kon mu bind ko ci faar yi faar fan la nekk kon dafa war a nekk sawet sawet ah li nekk sawet dafa war a nekk sawet xam nga ki nekk sawet du sa roi du sa jaam sa lan la ñun ñëpp ñun ñëpp bu nu amee xarit bu baax dañ naan kii moo nekk sama wet waxoo moo nekk sama kaw de waxoo moo nekk sama suuf looy wax kii sama xarit bu baax la sama wet la nekk fu ngeen ko gis gis ma moo tax yàlla def jigéen sa wet pour mu jege la ngay diisoo ak moom di waxtaan ak moom di sottante ak moom xalaat gis ngeen yonent bi alayhi salaatu salaam am na xista bu ngeen di jàng bis bu nekk yonent bi li muy nekk yonent yonent jigéen moo ko génne keroog ci problème boobu amoon ban xista la ñaar yëkkati nañu sama kado yi war naa ko indiwaat de ñaar yëkkati nañu ñett ah ban xista la aha gis ngeen ñaar kon am na ñaar am na ñaar kon kii indi na benn yow aha Hudaybiya gis ngeen bee Xadija moo ko ne yàlla du la gàccal bii kan la àndaloon Umu Salama moo ko ne xam nga ne ñii yow rek lañ bëgg yow waxoon nga leen da ngeen dugg màkk ñoo ngeen ba fi yéeféer yi nee na du ngeen dugg dama rek dama nga sangu rek nga watu nga sol soo ko defee rek gars yi nañ la topp fekk yonent bi commencé na ñaxtu mu dem sangu watu solu mu génn rek gars yi gis mu armal ñu bëri daal di daw sangu ji def li yonent bi def ñu daal di génn ci yoon ñoom ñoom jàkkaarloo yooyu yéen bi ne yal na yàlla yërëm ñi watu gaa ñi watuwul ak ne ñi wàññi mu ne yal na yàlla yërëm ñi watu gaa yi wàññi ne ak ñi wàññi mu ne yal na yàlla yërëm ñi watu ñi wàññi ne ak ñi wàññi mu ne yal na yàlla yërëm ñi watu ak ñi wàññi ma dafa ñaanal ñaata yoon ñi watu ñeenti yoon ñaanal ñi watu ñi wàññi benn yoon waaye gis ngeen keroog mu salama def na ci liggéey bu rëy rëy rëy rëy kon jigéen mbokk yi du rek comme tey sunu jamono nuñ ko jàppee lu ñuy fajee sunu bànneex wala lu ñuy tiitaroo déedéet waaye ku war a nekk sunu wet la pour régler sunu dund pour ñu jàppalante ñun ak moom pour defar sunu kër ñeenteel an al aliha al batila la tanfa wala tadur yàlla yooyu ñu tuddee ay yàllaay caaxaan yàllaay caaxaan ah jël nit def ko yàlla wala jël photo wala jël estati wala jël ab garab gëm ko comme ni nga war a gëmee yàlla fa haa huwa firawna alladi kaana yad'i al-uluhiyya wa yaqulu ma alimtu lakum min ilahin ghayri ajaza an yaj'ala zawjatuhu tahmilu bi walad musiba bi alak firawna yépp lan la ban musiba moo alak firawna mooy munta am doom firawna li muy ngand yëpp nekk buuru àdduna ba ne mooy yàlla munta am doom mënul fexe ba jabar am doom looloo tax bi mu gisee firawna jabaram yor ko ni ko kii moom xaw ma kan la ñuy rey de waaye xale bi bokk ci kii moom dañ koy def doom asa an yan faana amaana mu jëriñ ñu kii moom kenn du ko rey ñaata yoon ngay gis fii kuy ngand ngandul fekk mënul dara ñaata ñaata yoon lañuy gis fii kuy ngand ngandlu laa wax te ngand ngandlu boobu muy def dara la mënul waaye di nga ko gis muy baxat baxari di yëkkati dënn di jéem a wane kàttan di jéem a wane mën-mën fekk mënul dara xoola firaaw na li muy jaay yëpp mënta fexe jabaram ëmb jabaram a ngi nii mënul waaw kon nanu bàyyi xel ne borom kàttan bi ki mën yàlla kese la subhanahu wa taala moom rek juróomeel mooy anna man ataa allaha jalla wa ala fa inna allaha yukrimuhu fi dunya wal axira wallahi ku topp yàlla yàlla teral la billaahi loolu loolu wax la joo xamante ne jarul sax commentaire ku topp yàlla muy dëgg yàlla teral la ndax yàlla du seetaan soppeem problème bi mooy est-ce que dëgg-dëgg yow topp nga yàlla wala est-ce que yow dëgg dëgg dëgg dëgg sa imaan bi am nga yaqiin am nga kóolute ci allah subhanahu wa taala waaye boo toppee yàlla rek yàlla teral la ku topp yàlla jàngale ni suwat min aadama ila nabiyina muhammad ila sahaba ila taabiin ba fii nu toog ñi mës a jaar ci yoonu yàlla sédd yàlla seen bopp yépp muy dëgg da ngeen gis ñu am taraanga wala ba ci Sénégal sax tey ñi ñu fi topp yëpp ci lan la leen nit ñi toppee yàlla seen jamono jaamu woon nañ yàlla baraw nit ñi ñëpp wiiri toppi leen jeex na ñenn ñi sax nit ñi def ay erreur di leen wax ay yàlla waaw moo tax yàlla ku ko topp rek mu teral la kon buñ bëggee teraanga àdduna buñ bëggee tedd nan topp yàlla topp yàlla nag li may faral di wax rek ñun Sénégal dafa am baat yu bari yu ñu sànk léeg-léeg boo nee nit dañ nañ jaamu yàlla wala nga ni ko nan topp yàlla wala ngay wax ak moom ci lislaam moom fa mu lay déggee fa ngay waxee day wuute suñ ne topp yàlla ñu bari dañuy jàpp ne man instant bi maa maa maa ngi topp yàlla parce que man maa ngi julli maa ngi dem jàkk waaw maa ngi jàng alxuraan ñu bari seen xel foofu lay yem ñeneen ñi ne ah man maa ngi woor weeru koor bi paas sax woor na maa ngi góorgóorlu lundi ak jeudi sax damay woor maa ngi naafila guddi ñeneen ñi boo leen di wax ci jaamu yàlla ñu yàppar ne dañoo war a julli kese fekk jaamu yàlla moom dafa matale lépp ci sa dund amuloo lenn benn fistin wala benn dërëm wala benn seconde wala benn tarfatal ayn boo dul nekk ci service yu yàlla ba pare da ngay am yaqiin ci yàlla tabaraka wa taala am ci moom kóolute sa imaan bi du wàññeeku benn yoon ci moom sunu borom subhanahu wa taala soo eggee ci martaba yooyu nag da ngay yokk da ngay am bànneexu ngëm yàlla da ngay am loolu ñu naan xalaawatul imaan bànneexu ngëm léeg-léeg nga dégg ku ne man de amatuma imaan léegi du ma yëg dara ci bànneex du ma yëg waaw dootuma yëg benn cafka ci jaamu yàlla waaw li koy waral dafa bëri te doomu aadama dafa war a yëg dafa war a yëg caf ka jaamu yàlla comme ni ngay naane ataaya tey buñ lañ di loon kaas ataaya nga guux sa premier guux loo yëg da nga yëg ne naan nga ataaya naka noonu café gii ngeen di naan boo guuxee loo yëg ataa gerte caaf bi ngay romb ci mbedd mi di jënd boo ko boxamee sànni koy sa gémmiñ ne kuruj kuruj loo yëg yéeg nga gerte gu am xorom yéeg nga gerte gu am xorom wala waaye léegi lu tax yow ngay julli yëgoo dara lu tax ngay jàng alxuraan yëgoo dara lu tax nga woor ba ngoon ngay dog yëgoo dara lu tax nga yeewu guddi di naafila yëgoo dara xoola boroom xam-xam bi ne su ma gisee lu bon iza raaytul munkara mu ne bu ma gisee lu bon ci mbedd mi wa ajastu an uzilaha ma tële koo dindi mu ne abulu daman dégg ngeen lu ma wax su ma gisee lu bon mënu ma koo dindi ma tële ko mu ne bu ma demee wan ak di tuur ndox deret laay saw ko am na lu mu yëg ah ki nga xam ne lu bon rek la gis bu ko dindi mënu ci dara mu ne day tiit ba bu demee di tuur ndox deret lay saw doomu aadama loolu la war a yëg ci jaamu yàlla booy jàng alxuraan da nga war a yëg ne yaa ngi jàng alxuraan dafa am benn sëriñ bu mag bu daan romb doomam muy jàng alxuraan bu xëyee nag yaa ngi jàng alxuraan de ne waaw maa ngi jàng kay saa yu ñu jógee jàkka ja mu ñëw moog doom ji doom ji jël alxuraan di jàng mu ne ko yaa ngi jàng alxuraan mu ne waaw maa ngi jàng alxuraan ba moom ñaar fukki at benn bis doom ji ne ko mais wax yow tout ça nga xëy rek dama yaa ngi jàng alxuraan mu ne alhamdulilah rabbil alamin ba ma laajee tey xam nga dama la wax yaa ngi jàng rek nga ni ma waaw ma dem sama yoon bàyyi la foofu mu ne tey nan sant yàlla ba ma posé question bi mu ne xam nga tax ma la koy laaj mu ne xaw ma ko mu ne dama bëgg nga jàng ko ka annahu unzila ilayka na nga ko jàng mu mel ne yow la ci yow lañ ko wàccee xam nga ñun li suñu problème ñuy jàng alxuraan duñ ko wàccee ci suñu bopp ci doomu aadama yi lañ koy wàccee fekk boo bëggee alxuraan jëriñ la boo koy jàng kan nga koy adressé lan moo tax yonent bi alxuraan def ko li mu ko def parce que dafa gëm ne alxuraan bi moom moo ko moom ci moom la ko yàlla wàcce alxuraan soo bëggee mu jëriñ la boo koy jàng wàcce ko ci sa bopp iqra'ul quran ka annahu unzila ilayk jàngal alxuraan bu mel ne ci yow lañ ko wàcc waaye boo koy jàng yëpp nga koy jox nit ñi comme ni ko paa yi def yaa yohan naas ee yéen nit ñi yaa yo lazina amanu ee yéen waa màkka yaa yo lazina kafaru ee yéen yéeféer yi misla bi yaa yo lazina kafaru ñu ne misla umaya wa wa firawna wa abu jahlin yaa yo lazina amanu ñu ne misla abu bakrin wa umar ayna nahnu ñun duñ ko jëriñoo te loolu ngay gis yenn tafsir yi yaa yo lazina amanu ñu ne waa màkk ana waa sénégal loolu moo tax du ñu jëriñoo alquran c'est parce que dañuy jàpp ne wàccul ci ñun te alquran amul ku mu dul jëriñ ku ko tiim amul alquran ñu ne boo bëggee wax ak yàlla julli boo bëggee wax ak yàlla dama nga julli boo sujjóotee rek yaa ngi wax ak yàlla soo bëggee yàlla wax ak yow jàngal alquran boo bëggee yàlla wax ak yow mën nga jël alxuraan bu sëggee balaa saa ngay jàng jeex yàlla mi ngi wax ak yow. ma benn xale bu jigéen tuub France. la woon rappeuse dafa tuub lan moo ah James lan moo ko tuubloo alxuraan famille bu ñu ko jox mu koy lii mu jaral ko bi muy liir téere mu dafa isolé wu moom pour mu xam lii lan la dafa isolé dem ba ci benn ville ci benn benn île waaw mu nekk foofu ah di tëdd ci naaj bi di liir téere bi mu yëg ne lii waxu yàlla tabaraka wa taala gam leetul amatul ci bànneex bi mu nekkoon nag li mu doon yëg alal bi mu amoon ak moom nga ko doon wër ci ak faveur yi mu amoon yi fee la ko jublu yàlla soo ko am na lu mu yëg maanaam lu ñuy wax ne nit dafa lu mu yëg ci yàlla koo yëg waaw ki ko xam kaamil ba waaw loolu mooy mbir souvent ngay gis ñun ñu li nii ko koy wax lu bari ñun ñi nga xam ne su am yëpp ci islam la nga gis benn waaye boo xam dafa tuub taawam ci diine foo xam ne wala ci dégg-dégg ci jaamu yàlla foo xam ne ki am ñaari ma bismillah man naa ko xoolal tey la tuub journaliste jël ko woo di ko laaj mu wax ko loo xam ne ci àdduna juróom-ñaar fukki junni julli ñu fi yoo xam ne xam lii am na benn waaye boo xam ne ci jumaa ji lañ tuubloo bisu vendredi ba pare ñu tuubloo ñu dégg ko turu jàkka ji ne ko lu tax nga tuub mu ne ñaar daal ñoo ma dugal ci am ñaari mbir ma ko lan mu ne parce que dama gis jigéenu jullit dañuy sol bu yiw bu baax di muur seen yaram ñu ne ko ñaare mu ne yéen seen wàllu jaamu yàlla yi da ngeen côté jigéen ñi côté ñun fële jaxase ñëpp mu ne ñaar yi ñoo ma yéem kaw la jëm am na julli boo xamante ne boo ko noonu lu tax léegi julli bi waaw papa sama yaay julli la waaye kese sama papa sama yaay julli la loolu mbir la yoo xam loolu du ñu avancé ci biir diine ji foog ñu jàng ko xoolal xoolal ci lim wax bi ko waa ji ne yow lu tax yow tuub continue rab bi nga doon def fa xoolal lim ko wax am na ay jullit yoo xam ne ñu ngi nekk ay jullit di ko def man gis naa benn waay boo xam ne je je suis musulman mais non pratiquant c'est pas possible musulman non pratiquant mooy la gis mu koy tiitaroo non non man musulman mais du ma pratiqué bu leen ñu sonal ah yow yow nga ne jullit nga mais doo pratiqué kon kay ban njëriñ la amati te xam nga ne ñoom ñu seen bopp julli rek imagine lii boo amoon jabar yoo xam dana la dem ma takk ma rek mais du la seen loolu du doo ci dugg nga yëw toog nii ne ko waaw man nga bëgg nga bëgg nga bëgg see yow mais dinaa d'accord ngay takk de waaye loo koy dee non pratiquant lañ koy dee loolu dafa nekk sama muslu ci ab jullit di ko génne ci gémmiñ mais ki tey la tuub ñu ne ko melal noonu mu ne déedéet ñu mel noonu xam lu tax yàlla indi ma ci kaw suuf man daa xam naa li tax yàlla indi ma ci kaw suuf allahu moo tax soo gisee li mu sol ak ni mu solo rek nga xam ne kii bu caaxaanu triché wul mais aussi xool lim bàyyi lim bàyyi ak fi tey tum wax na ah yàlla ma wax dëgg yàlla yàlla wax day dëgg suñu kaw sa bëgg yàlla mu wax lan la lii walan tarda anka al yahudu walan nasara xatta tattabi millatahum lu dul rek nga nekk seen yoon nekk seen yoon rek day bëgg la financel xoolal tey def lu bon dañ leen di jël léegi léegi léegi may leen may leen carte may leen defal leen passeport diplôme yóbbu leen defal leen sécurité parce que ci lu bon nekk parce que ci lu am lañ jóge di def bëgg ñun ñi ni ñoom kon mbokk yi tomb yu ndaw yi attanu borom bi tabaraka wa taala moom moo doon sunu darsi tey ñaan borom bi subhanahu wa taala mu jéggal ñun tey assalaamu aleykum wa rahmatullah boo amee ay question